guy Qatar yàlla sàmm ngi nii ah ñu war a dem Genève mais Père Keba. sa doom ji di Waly Ballago Seck di sa doom. Ah. day waajal album international la 6. ay wana bi free la ko tuddee. ay wana ay wana bi free. loolu mi tekki maanaam mi ngi teet maanaam euh, tu peux être libre daal. ou je peux. ñaar yooyu rek. tu peux ou je peux. ou te sa doom ji nag loolu mu génnee nag. mi ngi ciy séntu ci album boobu noonu ci liggéey bi mu ci liggéey. disque d'or incha allah rabbi ñëpp di ko ci ñaanal. looy wax ci loolu yàlla na ci am lu raw disque d'or maanaam xam nga or am na mais gi après or am na. waaw waaye yàlla ci am loolu ba ba ci sëkk nag. wax yàlla perke ba kontaan naa. Eh, moo yow mooy yow yow faram ma leen nga. na yàlla ko ñëpp mais. li eh, koy ñaanal rek moom xam ni nga ko waxee parce que xam naa fi nga ko teg. ndax vidéo ba def daanaka di ko tudd même bu si nekkul sax di ko tudd ndax. waaw dara ndax ndax bëgg ko bëgg. waaw dis door la bëgg. waaw disque d'or moom ñu aussi ah. ah. la bëgg def na lu ne. incha allah non non non defagul lu ne mi ngi def. waaw di ko xaar chaque chaque chaque chaque minute chaque seconde. waaw war na mën a ñëw. waaw ay façon bi ko xaar. waaw moom liggéey na li mu war a liggéey lépp. moom fi mu nii ah commencé gu wax nga dëgg wax nga dëgg loolu lay laa lay wax commencé gu ñun ñëpp gu waaw mais di ko ñaanal bépp waykat nag góor muy jigéen ah. di ko ñaanal encore une mais moom yàgg na ko moom da ko teel bëgg am na ci droit ndax ñu ngi koy liggéey waaw leer na waaw waaw ah, ko bëgg ba nga xam ne vidéo ne da nga def vidéo te yow yow nekk sax waaye foog nga tudd ko ci ndax mbëggee waaw yàlla nag suñu borom may defal gis ki jama amiin jama jama amiin jërëjëf Père naa ah. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum waaw on est là ñoo ngi restaurant bi du restaurant Thiongor kenn du fi dugg xoolal prix yi jëlal leen prix yi leen. wàccal ba suuf waaw. du restaurant Thiamokho waa dégg nga pour ñu dëkk Paris xam nañ ko Champs-Élysées bi mooy restaurant Niakhar Ndoye sama restaurant di restaurant Wali waaw ñu si ñëpp fii la ñuy te am xaalis ok merci beaucoup. yeesa yeesa ah ba tey ñu yu baax la sama yaram bi day metti man noonu la sama yaram waaw mooy loolu gars ñoo leen di wala boog loolu mi ngi cool mi ngi bu ndaw nii xam nga nu laal alcool amiin cool man yi pour yéen ñi nekk Paris fii mooy hôtel Waly Le Claret Le Claret hôtel Waly gis ngeen ko léegi boo doxee hôtel Waly nii Zara ngay jot gis nga ko nga topp Zara bi topp Zara bi topp Zara bi topp Zara bi topp Zara bi topp Zara bi topp Zara ba gis nga ko Fnac fii la CD album Wally Seck fii lañ koy jaaye sa précommande fii nga koy defee nga dugg nga wàcc. nga wàcc jël escalier wàcc fi nag wàcc fi nag ndànk-ndànk xam nga ndànk nga wàcc wàcc maa ngi ni def samay commande fii ngay defee commande yi dugg naa si biir mën nga jënd 2000 euros 3000 euros 4000 euros fii la ñuy defee commande yi fi nag ngay dugg incha allah